He's had a look. le président de la république est-ce xam ngeen lu mu def bi mu demee euh, Bakel dañ dañ ne les président président conseil départemental yi ànd ak maire yëpp dañoo daje ne bu ñu sañoon nga ñëw ñu yóbbu la nga gis li xew fii may wax ak yow ils sont très en colère parce que dana leen loolu du ko mën man daal bàyyi leen ma comme léegi am naa roppalaan ba may wut nguur gi nag aw ma roppalaan waaye léegi comme euh, am naa roppalaan léegi avec une bonne ma euh, une machine à café yooyu yëpp ci kaw bàyyi leen ma rek ma nekk ci kaw survolé euh, ñu may toppatoo ci kaw su ma paree delluwaat sama dëkk delluwaat Ndakaaru Njaay c'est ça qu'il a fait c'est inadmissible au même moment ya y aussi une danse du scalp au niveau de Dakar Arena. Diomaye Faye va visiter des sites d'orpaillage de la région avant de se rendre à Bakel s'enquérir de la situation des zones inondées. Il a été accueilli, euh, vous, le voyez à l'image, par les autorités locales et administratives à son arrivée. Et nous y reviendrons bien évidemment avec les équipes de la présidence de la République dans nos prochaines éditions. C'est bon, dina dugg. situation sanitaire d'exception, une situation actuelle, c'est que nous avons depuis notre sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter, mais il était ministériel. Et, et j'ai trouvé des qui ont cédé à parce qu'il qui ont voulu rester dans les maisons voiture. <laughs>